waxinda adaanil jumuhati ak fa noddug jumaa ba lil jaalis ñeen aji toog ja ba tey bu fekkee da ngaa ñëwoon ba toog ci jumaa ji fekk muy bisu ajuma kon bu fekkee naafi woon nga la ngay naafila ba noppi kon sib nañ ñu nodd rek tax nga jóg daal tàmbaliwaat naafila mel ne ko doon xaar nodd ga waaye nag bu fekkee da ngaa ñëw fekk ñu nodd rek moom saye boo naafila ndegam da ngaa jiit si woon ci jumaa ji fekk waxtu yu jotagut nga daal di naafila nuyu jàkka ji daal toog nag du tee bu waxtu wa jotee bañ nodd na nga jóg naafila waat ndax naafila naafila yi nga bëgg a jiital njëkk julli julli jumaa gi waaw nga xam ne kon yow yow nodd ga taxu laa jóg daa fekkal nga nekk ci jumaa ja te waxtu yu jotagu doon bañ noddee waxtu yu jot nag nga bëgg a jiital li ngay jiital ci ay naafila njëkk jumaa njëkk jumaa ji lim sib nii kay mooy yow waxtu nga ñëwee fekk na julli jot na waaye nag nodduguñ naka nga julli ba àggal nag léegi noddu képp noddu kese tax laa jóg nag léegi mais noddu gel tax a jóg waaw loolu am ñu ne daal am nañu ne sax bu dee ku ñu roy ci moom nga xam ne bu defee ñu jàpp ne aw defin la lu mu def ñu defee ne aw defin la boobu lañ koy sib waaye bu dee koo xam ne kenn roy ci moom sax di su ko sib a tax mu naa wa mahalul karahati li jaalisi in kaana mi man yuqtada bi wa illa fala wa baxda faradil jumaati ak gannaaw faratay jumaa ja fii musallaaha ci jullikaayam ba ba tey nee nañu gannaaw bu julli jumaa ji noppee sib nañu ngay naafila te ilimaan génn gut waaye nag bu ilimaan génnee rek mën ngaa naafila ba tey itam bu fekkee dox nga say tànk ba génn jàkka ji door a ñëwaat itam da nga mën a naafila wa tax saraa bi naa watan dafi alkarahatu ida xaraja min al masjidi suma haada ilayhi fa lahu an yusalliya macha min an nafli kon jàppal ne gannaaw julli juma bu fekkee ilimaan génnagul juma ja dañuy sib naafila bu fekkee ilimaan génn nag mbaa génnul waaye mën naa génn xëy na daa am loolu waxtaane mbaa yooyu rek waaye génn xaj na fa daa génnagul rek koy ba tey mënees naa naafila wala tukrahu def defu ko si moom naafila xinda waqtil istiwaay fa waxtu yemoo ga maanaam saa yu jant bi nekkee digg asamaan bëccëg bi door xaaj yem ca képp nga xam ne li mu weesu ak li mu dëgmal ñooy moo dong dong dong loolu mooy waxtu yemoo ga yooyu jamono kenn sibu fa naafila boo bëggee naafila say boo naafila maanaam nag xam nga ne kon am na waxtu wuñ araamal naafila am na waxtu wuñ sib naafila soo taxawalee naafila ci waxtu wuñ ko sibe dañu sopp nga dagg ko soo taxawalee naafila ci waxtu wuñ ko araamale kon day war nga dagg ko te doo ko sañ a bañ moo tax mu naa waqataxa wu jooban muhrimun bi waqti nahyi tahrimin waqataxa nadban muhrimun bi waqti nahyi karahatin id laa yutaqarrabu ila llahi taala bi ma naha hanu ba xam nag ahrama kullun hamdan aw sahwan aw jahlan faslun li ab dog la te bu ko ñëw ci noddu al adaan noddu sunnatu sunna la fil mawaadi ci béréb yi allati ya nga xam ne al aadatu lay aada an taj tamiha mooy bu dajaloo annaasu nit ñi bihaa ci ñoom kal jawaamihi ni ki jumaa yi wal masaajidi ak jàkka yi noddu sunna la nodd nag mooy yëgle ne waxtu julli gi jot na fépp fii néegu yàlla rek moo xam jumaa la moo xam jàkka la ak lu jàkka yi jege jege rek sunna la bu waxtoo jotee ñu nodd ko yëgle ne julli gi jot na ba tey itam bu fekkee mbooloo dañoo tase ci béréb boo xam ne jàpp nañ ne bu ñu noddee am ku ñëw fekk ci leen ci julli ga moo xam day ci garab pénc moo xam day ca marché ba ba tey sunna la ñu nodd waaye nag bu dee mbooloo moo xam ne fay nekk moom xam ne ne bu ñu noddee itam kenn du ñëw mel ne mbooloo muñ tëj kaso waaw boobaa moom du ñu nodd sakku ñoom ñu nodd waxoo moom nodd nag al inlaamu mooy yëgle ga bi duxooli waqti salaati ci tàbbi gi waxtu julli wa al mafrodati wa di wuñ farataal bil alfaasi ca baat ya al mashruxati ya duñ yoonal dana xamal lan mooy nodd nodd mooy yëgle ne waxtu julli gi jot na te yëglee ko ci baat yi nga xam ne moom la yoon tëral ne da ngeen ko ci yëglee loolu boo ko defee rek nodd nga waxoo moom nag mooy allahu akbar allahu akbar allahu yàlla akbaru mooy aji màgg moom dong mbaa akbaru moo gën a màgg boo tolloo leene am na leneen lu màgg ashhadu maa ngi seere ne annaka lay mbir laa ilaha amul benn buur illallah ndara yàlla te la ko baamu ashhadu an laa ilaha illallah ashhadu maa ngi seere ne anna muhammadan naka muhammad rasulullahi ndawul yàlla te la ko baamu ashhadu anna muhammadan rasulullah umma yu rajjuhu topp dana deltoo ashahadateen yaari seere ya bi arfaa ci lu gën a yëkkatiku min sawti yi ci kàddoom nga awalan ci njëlbeen maanaam da nga yëkkati allahu akbar ci kaw del ko baamuwaat ci kaw daal di wax nag ashhadu an laa ilaha illallah ñaari yoon ashhadu ashhadu anna muhammad rasulullah ñaari yoon wëlbatiku nag baamuwaat leen baamuwaat boo xam ne mooy gën a xumb bu njëkk ba su ma yàqool topp dana wax hayya jublu si leen xala salaati ci julli hayya jublu si leen mooy ñëw leen rek xala salaati ci julli day wax hayya xala salaa hayya xala salaa nga xam day dindi ñaari tomb yi mu nag mas ak saqeer gi masque nekk te fexe ba jàngale ko muy hayya xala salaa hayya xala salaa hayya jublu si leen alfalaahi jëf ji sabab texe hayya jublu si leen alal falaahi ci jëf ji sabab texe mu ñëw leen julli ñëw leen ci julli nii nga xam ne day taxa texe moom it xaalonku googu da koy maas maas lu nekk te fexe ba jàngale ko ne xayya xalal falaax xayya xalal falaax ndax bu ne xal falaa rek falaa kis ab àll lay firi li mu ne ko ñëw leen ci àll bi la te li mu bëgg a wax mooy ñëw leen ci jëf ji taxa texe muy julli daal di wax allahu akbar allahu akbar daane li laa ilaha amul benn buur illallahu ndara yàlla mooy mu ne laa ilaha illallah da jàngaali ah boobu ak saqe gi ci illallah ji waye siidu dana dolli fii adaani subhi ci noddu suba baax da xawlihi ci gannaaw waxam ja hayya xalal falaahi hayya xalal falaah asalaatu leeru julli xayrun moo gën mina naw mi ci noflaayu nelaw marateen yaari yoon maanaam bu dee julli suba boo waxee xayya xalal falaax da nga cee teg asalaatu xayrum minan nawm aw am ngay jéem a jàng aw am ndax yaari masque yi néeg la waaye noonu ñu ko war a jàngee wala yajuusu dagan an yu addana bu dee fi nodd li salaat ñel ak julli mina salawaat ci julli alxamsi ya di juróom xatal jumuhati ba sax julli jumaa xamle waxtihaa ci njëkk waxtoom wa nee na araam na nag ngay noddal ak julli te fekk waxtu wa jotagut ndax xam nga nodd da yëgle ne waxtu yu jot na te boo ko defee te njëkk waxtu wa jotut boo ko defee fekk waxtu wa jotut kon wax lu amul lay doon ba sax julli jumaa bala ñu ko nodd rek da fekk tisbaar jot nga xam ne bu doon tisbaar ñu war a nodd moom moog tisbaar ñoo bokk wenn waxtu illa salaata subhi ndare julli suba fa innahu naka moom yustahab bu def na sopp an yu addana bu dee fi nodd la xaañeel ko fi sudus ca sudus ba al axiri bay aji mujj mina layli ci guddi ga qabla tulooxil fajiri ci njëkk fenku fajar julli suba mi nga xam ne daal moom bu dee ñëw day fekk nit ñi toll ci waxtu nelaw bëgg lañ kon balaa jot ñu nodd noddu yeete ndax nit ñi mën a yeewu waajal ko balaa jot kon guddi gi boo ko defee juróom benn xaaj bu juróomee jàllee ba mu des benn bëgg nañ nga nodd kon nodd gu jëkk waa Touba dañoo aada woon ak moom seen digganteeg salaatu bu desee wenn waxtu rek la ñu nodd nodd gu njëkk nga xam ne fañ noddi nodd gu njëkk buñ ca tegaatee waxtu rek daal di nodd noddu salaatu noonu nag baax na waxtu lëm moom mënees na faa waaj mënees na faa fàggandiku bu baax moo tax mu ne su mayu addana topp def na nodd la xàññeel ko saani yéen noddu ñaareel xinda du xooli waxti fataab bi waxtu wa boo noddalee suba noddu yeete du tee bu waxtu wa jotee dëgg dëgg nga noddaat nag nodd gu wane ne fi mu toll nii julli jot na kooku ca la ñuy waxaale assalaatu xayrum minan nawm nodd gu njëkk ñi yeete moom kenn du ca waxaale assalaatu xayrum minan nawm wa yustahabu def na sopp lil munfaridi ñeel kenn ida kaana dem nekk na musaafiran di aju tukki an yu addina mu nodd li xadiisi abi saidin ngir xadiisub abi said nee nag kenn képp kat li muy doon doon kenn bu génnee tukki daa wax tukki rek waaye génn dem tool sax ci la wala génn di sàmmi moom daal saa yu xasee génn rek doonte moom dong la xam na ne bu nodde itam kenn du ñëw ànd ak moom julli du tee sopp nañ fu julli jote rek mu daal noddu te yëkkati kàddoom bu baax a baax ndax daam addis bu yonante bi waxan abu sahid ne ko inni araaka tuhibbu alganama wal baadiyata fa ida kunta fi ganamika aw baadiyatika fa adzanta bisalaati farfa sawtaka binnidaay fa innahu la yasmau mada sawtil muazzini jinnun wala insun wala shay'un illa shahida lahu yawm alqiyamah dane woon abu sahid yooyu day gis naa la ngay ku bëgg jurgeeg àll bi waaye boo nekkatee ci sa jur gi mbaa boog ci àll bi ba julli jot na nga nodd te yëkkati sa kàddu bu baax a baax ndax kat kuy nodd ku ne bu wis pencee lépp lu déggal sa nodd rek muy jinne muy nit muy leneen dana la seereel jëf ju baax ja nga jëfoon bu wis pencee tambihun li ak yeete la wal yaxdar na watandiku al muazzinu aji nodd ja min maddi baa i akbaru ci bijji baa bi nekk ci akbar day bëgg a wax nag yoo xam mat naa moytu boo dee nodd maanaam baa bi ci akbar moytu koo wax akbar akbar rek la waaye baa boo bijjiwut wa ashhadu ak am sa gi ci ashhadu wal jalalati ak am sa gi ci baatub allah lafzul jalala mooy allah day bañ nga ne ashhadu wala boo ko waxee li muy tekki mooy ndax danaa seere te liñ bëgg wax mooy seere naa ne yàlla rek ay bóor mbaa seere naa ne Muhammad yàllaa ko yónni ci kaw nga wax nag ashhadu rek waaye boo nee ashhadu li muy tekki mooy ndax danaa seereem du ma seere ba tey baatub allah day bañ nga wax allahu akbar te na ngay laajte kon ndax yàlla mooy moom rek ay buur wala déet ndax am sa yi boo ko defee allahu day laajte allahu rek liñ bëgg nga wax koon wa min al waqfi na moytoo taxawe xalaa laa ilaha ci laa ilaha na moytoo wax ashhadu an laa ilaha maanaam taxaw ci laa ilaha mooy alsaxfar googu masku mas googu nekk na farlu ci wax ashhadu an laa ilaha ba mu wér bu jàllee ci illallah nag foofu lay taxawee bu wér a wér wa min tarki idgaami daali ak ci bàyyi dugal daal ga firraay ca raaga min muhammadar rasulullah ci muhammadar rasulullah xam nga dañuy bind muhammadan rasulullah waaye bëgguñu ko jàng loolu dañoo bëgg nga jàng da ar dañoo bëgg daal gi nga dugal ko ci raagi nga jàng ashhadu anna muhammadar rasulullah waaye na nga jàng ashhadu anna muhammadan rasulullah njàng mu wér la sax waaye taxul ñu taamu ko ndax day aw yàqu wu xaw a làqu wa min fatxi laami ak ci fataa laam nga min rasulullah ci rasulullah xam nga ashhadu anna muhammadar rasulullahi la fataa mooy masquet ci kaw day bañ nga wax ashhadu anna muhammadar rasulallahi buy wax rasulallahi déedéet rasulullahi la dañ koy maas maas koog lonk moom laam gi waaye du ko maas masquet ci kaw wa min tarki nutxi ak ci bàyyee tudd ga bil haay ci xaaga min xayya xala salaati ci xayya xala salaati xam nga xayya xala salaati boo koy wax da ngay dagg ñaar tomb ñi ci salaati gi daal koy maas maas ka nekk moom al saqeer gi nga daal di wax xayya xala salaa daa bëgg nag ah boobu nga indaale ko bañ na rek xayya xala salaa salaa boo ko waxee sawara lay firi ñëw leen ci sawara wi wa min tarkil xaay ak ci bàyyi xaaga min xayya xalal falaaxi ci xayya xalal falaax doon naa ko wax léegi daa bëgg wax xayya xalal falaax nga xam ne ah boobu ci xaalonk bi da nga koy maas maas maas ko ne góor te jàngale ko te bañ a wax rek xayya xalal falaa falaa rek moom ab àll lay firi ni ma ko waxee woon léegi wa yakoonu dana nekk al ataanu nodd ga mutarassilan di luñ yolom lu mbaa boog mutarassilan di aji yolom min xëyri maddin ci ludul ak bijji mufritin guy aji ëpp wala tam téyitin du ca yoon ak tàllal ba tey gu ëpp leena booy noot dañoo bëgg rek nga digg doomu bul di xàjj araf yi di ko xëcc muy gudd lool lool ba ëpp bul ko gàttal lool lool da ngay digg doomu rek loolu moo baax mawqoofan tey lu ñu waqaf lu ñu waqaf mooy fenn fu nekk da ngay dindi masque nga fu nekkoon dafa masque néeg fa sa baat di daanoo masque néeg moo fay nekk doo jàng ci nodd gi allahu akbaru ngay wax allahu akbar dafa maas ak nekk doo jàng ashhadu an la ilaha illa allahu maas ko wér wér dee da nga wax ashhadu an la ilaha illa allah ashhadu anna muhammadan rasulullahi bul wax loolu ngay maas ci mujj maas gi nekk ne ashhadu anna muhammadan rasulullah ba tey hayya ala salaati bul ko wax ngay wax hayya ala salaa ba yépp jeex moo tax mu ne xayra moorabin du lu ñu ihraab du lu ñu ihraab mooy muj ga doo ko maas la nga ko war a maas ihraab mooy nga maas ko maas lu ko dëkk moo xoof nag mooy nga def foofa maas gi nekk ndax taxaw ga nga ca taxaw mu tawaaliyante aju toftaloo bi xaysu laa yataxallaluhoo ci foo xam ne du ko diggale sukkootu noppi kasirun gi aji bari wala kalaamun du caageenu wax sawaawun way yemoo la kaana moo xam nekk na salaamanti ab nuyoo aw raddan wala fay ab nuyoo aw xayrahuma wala lul ñoom ñaar daa wax ne baat nodd yi boo koy nodd day tegaloo mooy baat boo wax rek teg ci ba ca topp waaye diggante ba doo fa jaaral leneen doo noppi lu yàgg ba nga xam ne ku ne dégg defee ne ah man ma defee noonu daa nodd ba noppi nga dootu jàll loolu dis ko def ba tey itam diggante baata moroom ba ci booy nodd doo fa wax dara la ni ki bu la kenn rombee bul ko nuyu bu la kenn nuyoo bul ko fay bul fa wax leneen tam ci diggante baat nodd bee ak moroom ma ngay nodd rek ba lépp daanu wa yustahab bu def na sopp li ma ñeel ka nga xam ne samihahoo dégg na ko ay yaxkiyahoo mu nettali ko ila axiri shahadatayni ba ci mujjug yaari seere ya min xayri tarjihin ci dul ak deltoo walaw kaana ak doonte nekkoon na fii salaati naafilatin ci julli naafila maanaam sopp nañ boo déggee kii nodd lu wax rek nga wax ko ba agsi ci yaari ashadu yi bu ko tàmbalee yëkkati na nga bàyyi nettali bi waaye ba ba muy wax yaari ashadu yu njëkk yi nga xam ne mooy gën a woyof ci kàddu bëgg nañu wax rek nga wax ko waaye nag foofu la sam nett li yem bu dee ci yoonu Malik bu ko tàmbalee yëkkati ci kaw rek nu muy gën a xumbi rek nga bàyyi nett li bi loolu nag boo nekkoon ci jullit naafila itam nit ki nga taxawal ni naafila rek nodd ko bi ñëw tàmbalee nodd li tey ñu tàmbu rek lu wax rek nga wax ko ba àgg ci feeñu la yemloo nga door bàyyi nett li bi wa yushtaratu def na sart filmu addini aj ci aj nodd ja shurootu sixatin sarti wér wa shurootu kamalin ak sarti mat maanaam kii nodd am na sart yuñ ci sart yoo xam ne mooy tax nodd ga wér bu ci amut noddam du wér am na sart yoo xam ne nag day tax mu gën a baax rek waaye bu ci amul du tee mu baax fa shurootu sixati sarti wér ga añ yekkoon mooy mu nekk musliman di ab julit balaa nodd gaa wér ka nodd di julit waaye ab yéefar bu noddoon du tax sunna si nodd ga am zakarantey góor ba tey kay nodd na nekk góor ndax jigéen araam na mu nodd baalixan tey mu kàllaf maanaam day mag bu dee gone goo xam ne xamewut sax doonte wax na baat ya itam du tax mu baax bu dee nag gone goo xam ne gu xàmmee la te sukkandiku ci mag nga xam ne mag maa koy wax ne ko mag maa koy jàngal na muy nodde ba nodd ga wér mu xamal ko waxtu woon mu dem nodd kon dana baax moom xaaqilante ay ci xellu maanaam kii nodd faaw na ànd ak sagoo bu fekkee ab dof daa demoon nodd doonte tegalee na baat ya na baat ya war a tegaloo du tax ñu jàpp ni sunna si am na wa shurootul kamaal yi sarti mat ga añ yekkoon mooy mu nekk xadalante aji maandu xaarifante aji xam bil awqaati ci waxtu ya sayitante aji xumb kàddu ba noppi neexle ko mu tattaxirante aji laab xaayimante aji taxaw mustaqbil xiblati tey ay jublu xibla illaa li ismaahi ndara ngir ak déggle sart yi nga xam ne bu ci amul dutee nodd ga baax waaye nag mu am ca moo gën mooy mu nekk ku maandu bu nekkoon kàccoor ku maanduwut dutee nodd ga wér waaye nag mu nekk ku maandu moom mi nodd moo gën te itam mu xam waxtu yi bu baax moom ci boppam bu fekkee xamul waxtu yi waaye am na koo koy xamal ne ko jot na mu door dem nodd ba tey baax na te it mu xumbale kàddu te neexle ko fekk ko ne xumbale wu ko neexle wu ko it du tee bu waxee baat yi moom rek nodd ga wér bokk na ci lay tax nodd gën a baax te nodd amee ak laab amem njàpp waaye nag mu jekki-jekki rek nodd te amul ak njàpp daañu ko sib du gën daal bokk na ci la ci gën mu taxaw te bañ a toog sib nañu mu nodd toog te amul ngànt bu amee ngànt nag moom mën naa toog ba tey bokk na ca la ca gën mu jublu xibla lu may na nga xam daa bëgg wet yépp dégg kàddoom bu fekkee yorul rajo yorul haut-parleur te mu bëgg wet yépp dégg kàddoom kon mën naa wareelu wet gu ne mu wëlbatiku wax fa bu bu dee bu dee nun sax nga xam ne soow bi mooy wanganaaw xibla sax du tee rek bu fekkee bëgg na waa soow bi dégg bu baax a baax mën na wàññi yet mën naa wàññi rabiku jublu soow wax ni mu koy defee ci yéen ci des yépp ndax bëgg fépp dégg waaye léegi nag bu rajo yi am léegi nag moom du aajoo jublu fenn fu may rek xibla ndax moom bu ko yàlla dogal rajo yi dina xumb ba àgg ci bidab yi yaatoo yaatoo wa an laa yekkoona ak mu bañ a nekk xat salla di julli tilka salaat googu la julli allati ka nga xam ne azdana nodd na laxaa ñeel ko julli ga muy noddal bu mu nekk julli goo xam ne moom ci boppam julli woon na ko ba àggal ñëw rek daal noddal waa jàkka ji ci misaal te fekk na moom googu julli julli julli na ko ba noppi loolu taamu wuñ ko faslun al iqaamatu liqaam sunnatun sunna la aw kadu sos moo gën a saddaliku moo gën a dëgër minal azaan ci nodd littisaaliha ngir jokkoom nga bi salaat ci julli ga nee na liqaam sunna la su dëgër soo xam ne moo gën a dëgër sax nodd ndax moo gën a sës ci julli gi te xam nga nodd moom maes na koo def te laaboo waaye liqaam moom faaw day aajowoo bala nga koo def fekk nga amul laab wa in taraaxaa ndeem yéex na maa la nga xam ne baynahuma nekk na seen diggante batal kon yàqu al iqaamatu liqaam ba wastu ni fatte sosaateef ko kon boo liqaamee ba mu yàgg gannaaw ba nag nga door a bëgg kabar dañuy jàpp ne liqaam ba yàqu na saye boo liqaamaat door a kabar waqaala bunu kinaanata waqaala wax na ibnu kinaanata ne man tarakahaa ku ko bàyyi xam dañ ci ak tey batalat kon yàqu salaatu ko julleem nga ibnu kinaana nee na koo xam ne daa bañ a liqaam te tey ko ak julleem du baax wax ji gën a wóor nag mooy du tey julli ga baax waaye teewul nag fan ihtiyaatu léemtu ga maanaam la gën a wóor nag an yu tarasa mooy bu dee fi góorgóorlu xal ittiyaan ci dikkee bi xaa ci liqaam bi wala yu ta saaxala te deeful sabantal fii daalika ci loolee dagam kilifa googu dem na ba ne ku ko deful sa julli yàqu kon la gën mooy nee na nga góorgóorlu ba def ko moom liqaam bi te bañ koo sabantal bañ koo weefal wa haza lii nag fi xaqi rajuli ci àqi góor rek de wa amal mar atu daal jigéen fa iqaamati liqaam nga fi xaqihaa ci àqam mustahabat lu ñu sopp la siran ci yàllu wa in lam tuqim déem liqaamut fala itma dit bàkkaar xale yaa di ko war nee na nag boo déggee ñuy wax liqaam ne noonu la dëgëre noonu lañ ci war a farloo góor a tax ñuy wax waaye bu dee jigéen moom liqaam aggul ci sunna dañ koo sopp rek te bëgg itam mu wax ko ci suuf wax ko ci suuf boole ci moom jigéen te bu fekkee liqaamu tam dara nekku ca wa lafduhaa baatu liqaam nag mooy allahu akbaru allahu akbaru allahu yàlla akbaru moo gën a màgg wala moom rek ay aji màgg teg wax ko ñaari yoon teg ci ashhadu maa ngi seede ne an naka lay mbir laa ilaha amul benn boobu illallah ndara yàlla teg ci ashhadu anna muhammadan rasulullah teg ci xayya jublu si leen xaala salaati ci julli xayya jublu si leen alal falaax alal falaaxi ci jëf ji sabab texe xadd xaamat taxaw na asalaat julli gi mooy julli gi teew na allahu akbar allahu akbar laa ilaha illallah dañoo bëgg nag booy liqaam moom nga maas baat yi baat bu nekk lañ ko war a maas lu may na fa nga xam ne fala sa kàddu yi taxawee moom bu sa kàddu yi jeex ba ngay taxaw moom la gën a wóor ci wéral njàng ma mooy nga fa sa kàddu yi taxawee nga maas ko maas ko nekk waaye daa wuuteeg nodd nodd moom des ko ihraam na nga waxoon fa ngay taxaw fépp da nga koy maas maas kay nekk fii dañoo bëgg fii ci liqaam moom dañoo bëgg rek nga jàng baat bu nekk lañ ko maas ne allahu akbaru allahu akbaru ashhadu an la ilaha illa allahu ashhadu anna muhammadan rasulullahi hayya ala salaati hayya ala alfalaahi قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله waaye nag bul fàtte ne damaa waxe noonu rek waaye fu sa kàddu daanoo rek moom bëgg nañ nga masque masque néeg ndax arab yi moom duñ nangoo tàmbalee baat masque néeg waaye duñ nangoo taxawee ci ab baat masque ko masque dafa dëkk lu may rek masque néeg waaw takk-takk yi mooy arab yi duñ nangoo tàmbalee baat masque néeg waaye duñ nangoo taxawee ci baat ci masque lonk mbaa masque ci kaw mbaa masque ci suuf kon boo ne allahu akbaru allahu akbaru ashhadu an la ilaha illa allahu ashhadu anna muhammadan rasulullah say boo def noonu masfu mask nekk hayya ala salaati hayya ala falaahi qad qaamati salaatu allahu akbaru allahu akbar da nga foofu nga taxawee sa yow mas masque nekk ba tey laa ilaha illallah boo ci taxawee ba tey sa yow masque masque nekk wamaa la nga xam ne dakar naahu tudd nañ ko min ifraadil iqaamati ci wéetul liqaam maa xada takbira ndare kabar ba fa innahu naka moom musannan lu ñu ñaareel la huwa moom almashhur mooy lu ñu siiwal almashhur mooy la ñu siiwal fa in shafaha ndem tollanti na xayra takbiri lu dul kabar ba laa tuj si hoo du ko doy al iqaamatu liqaam nga nee na lii ma la wax nii ci booy liqaam nga bañ koo jaawal nodd nga xam ne baat bu nekk da nga koy wax benn yoon rek mu des allahu akbar allahu akbar rek ngay baamu yaari yoon waaye lu bokkut ak moom da nga koy wax benn yoon yeen loolu kat mooy li siiw ci yoonu Malik nga xam ne su fekkee am na baat bokkut ak allahu akbar nga wax ko yaari yoon ni ki xad xaamati salaatu nga wax ko yaari yoon ne xad xaamati salaatu xad xaamati salaatu wax ko ñaari yoon sax liqaam ba du doy wala yatakallamu du wax fil iqaamat ci liqaam nga nee na booy liqaam nag daañu sit nga wax dara lu bokkut ak baat liqaam ya wala yaruddu te du delloo xalaaman ci ka nga xam ne yu salli mu dana nuyu xale yi ci moom bu la kenn nuyoo daañu sit nga di ko fay doon si sax fay ba fay joxoñ ak sa baaraam la mbaa fettasu yé tàmmuñ ko dañoo bëgg rek boo xasee way liqaam moom bul nuyu kenn te it bu la kenn nuyoo bul ko fay wal musalli aji julli ja mu xayyarun ku ñu tànn loola bay na an yàqoo ma ci diggante mu jóg li salaat jëm ci julli ga xaalal iqaamati ci waxtu liqaama aw bax daxaa wala ci gannaawam nee na yow nag bu fekkee liqaamoo ngaa bëgg a bokk ci julli ga rek bu la neexee kooka tàmbali liqaam nga jóg fa saasa ànd ak moom taxaw bu la neexee bàyyi ba ci biir nga door a jóg bu la neexee bàyyi moom liqaam ba daaneel nga door a jóg yëpp ñooyam ci yow waaye nag moom mi liqaam moom faaw lay taxaw faslun charaitu salaati sarti julli arbaxatun ñeent la tahaaratul xabasi laabu xabas xani saw bi wal ismalaan wal badani ak yaram wal makaani ak béréb ibtidaan ci ak tàmbali wa dawaaman ak ci ak sax nee na julli am na yeenti sart yoo xam ne moo koy taxa wér te bokkut ak farata ya bët jëkk mooy bañ a julliwaale sobe ci sa yaram mbaa yére ya ngay sol te bu ne yéree musuwaar ak montre yépp ca la ak bërëb ba ngay taxaw di julli te baña ànd ak sobe googu mooy bañ a julliwaale sobe gi daa war a am ci ba ngay tàmbalee julli ba ba ngay sëlmal su fekkoon ne bi ngay tàmbalee amiwoo sobe waaye ngay julli ba ci biir sobe dal ci sa kaw sobe su tooy daal lay taq daal lay yàq julli ga su waxtu wax yaatoo rek faaw nga war a dagg dem tàggoo sobe si ñëw julliwaat moo tax mu ne ibtidaan wa dawaaman ba nga tàmbalee ba ngay noppi yépp day aajoo nga ànd ak laab googu teyit bul fàtte xukumul xabas xukumul xabas mooy bu la soobee taqee da nga koy dindee ndox mel ni mi ngay jàppee su fekkee da nga koo dindee ndox melul ne mi ngay jàppee ni ki nga fóote ko saabu rek mbaa ndox mu soppiku kon jëmm ja dañ ne waaye àtte ba dafay des ba tey ba tey kon bu dee sa yaram du tax nga mën a julli bu dee sa yére noonu bu dee béré ba ngay jullee faaw nga awale ci kaw ndox mel ne mi ngay jàpp njëkk ba àtte xabas ba dañ nga door a mën a julli wa tahaaratul xadas ak laabu xadas ibtidaan ci tàmbali wa dawaaman ak ci ak sax fii kulli salaatin ci gépp julli daati rukoohin guy boroom rukoo wa sujoot ak sujoot wa xëyriha ak gudul moom laabu xadas mooy bu la jàpp waree nga jàpp bu la sangu farata waree nga sangu farata bu fekkee tiim mooy sa farata nga tiim loolu mooy laabu xadas kooku moom it faaw mënta ñàkk day aajowoo nga amee ko ci ba ngay tàmbali ba ba ngay noppi fekkoon ne amoon nga laab googu di julli ba ci biir far njàpp ma toj ci misaal kon julli ga day yàqu moo xam ne julli ga dafa amee rukkoo ak sujjóot mel ne julli farata ak naafile yi wala muy julli goo xam ne sax amul rukkoo ak sujjóot ni ki julli ak néew ñoo ci yemoo du tee mu war a am yaari laab yooyu moom ba ci sujjóot alxuraan sax mbaa sujjóotu jamooy sax yépp du tee rek ñu war a am laab googu wasatul xawrati ak suusaa xawra bi kasifin ci aji tal bi mu sàll sëtin ci lu ñu tomb ñett tomb ay limu ci namm xali sin aji tal bokk na sart ci lii nga sàng sa awra te sànge ko lu tal loo xam ne awra ji du feeñ mu wax la ne kon lan mooy awra wa awratu rajuli wa awratu rajuli awray góor min surratihi mi ngi tàmbalee jumba xam ba ilaa rukbatihi ba ca bëti woomam ba góor moom awraam mi ngi tàmbalee jumba xam ba ci bëti woomam te sax awra njàng ja dëgg dëgg nga xam ne moom suñ caa feeñal dara mooy kanam gi ci buntu kanam gi ci saw meeg la ko wër ak buntu suuf ba loolu mooy awra ji mag jaam ak awra ji ñàngal ne sax lu mel ni xëy na wóom yi ak lupp yi awra la waaye ñàngewul ne jooja wa awratul mar'ati awra jigéen nag alxurati ja di gor maxa ajnabiin ànd ak jaamur bu góor ak bu dee jullit noonu la ñoo bokk àtte jamihu badaniha mooy mboolem yaramam wa ilal wàcc xam rek kanam nga wal kaffayn ak yaari teng ya jigéen moom nee na bu dee gor te di julli mbaa foo xam ne ab jaamur bu góor mën na ko faa fekk kon day aajowoo mu sàng mboolem yaramam yépp yépp ba mu des kanam gi teng yi kanam gi teng yi donc mu nekkul awra ci moom bu ko defee nag bu dee ci yoon Maalik moom sañ ngaa xool kanamu jigéen ji ndegam xool nga jubloo ca bànneex te it ragaloo ci fitna boo ci jubloo bànneex ca xool ga nag mbaa nga mbaa fitna mën na jàpp